j'aurais bien voulu savoir, en ruine Bobo, si bonne femme se un pays mhm. en ah, ruine mhm. mais est-ce que c'est sur le plan économique est-ce que sur le plan de nos institutions ou de la République bonne plan là, ruine Ben je vais pas m'épancher sur Ben mot pour en faire une globalité un pays en ruine c'est sur quel plan Souma expliqué expliquer parce qu'il a dit après que on va dire la réalité aux Sénégalais. Le moment venu, peut-être ces déclarations politiques générales. Je ne vais pas, moi, me baser sur ben propos du genre nous sommes dans un pays en ruine pour étayer une situation bo xamné basé au ci ruine sur le plan économique. Le Fonds monétaire international après une visite euh, nous a dit être inquiet pour l'économie malgré une croissance en 2023, une certaine résilience du Sénégal en 2023. C'est le FMI qui dit que nous sommes dans un pays où on a à s'inquiéter par rapport à la situation économique. FMI moo ko Il y a na ni qui sont ñuy basé wu ci bari pour mën les agrégats et surtout mën xam lan moy suñu position au plan économique parce que té lañuy sax sukkandiku ca bu ab àbb bu ñuy lebak buñuy yenen ak yenen ñu ne la amna nak ci banque mondiale banque mondiale wax moy il faut profiter d'une certaine situation qui se présente au Sénégal au plan national avec la découverte de pétrole de gaz et surtout la ñuy tambalé diko déco exploiter sur le plan économique ñu né la ñay même si nous def ay eurobond wala ñuy def ay euh, euh, di lever ay fonds taux bañ ñuy lebale lebalee sax ci taux en euh, kii fay bi tout simplement parce que ay risques amna na ci Sénégal qu'on n'a pas encore dépassé risque yoy nan la amé moy ñu ngi joggé ci ben situation économique bo xamé ni euh, résilience amna ci réew mi mu won lolu ci période bo xamé de 2020 à 2023 féminé ni amna situation bu fi amone ci aduna bi yépp waye Sénégal def na face ci situation bobu ñu ñëw barki dem na la.

kay dem ca marché ba war naa sentir ndax réew mi baax na wala baaxul génnal ci mbedd bi nga jël sa micro nga tàllal ko citoyen ne leen est-ce que est-ce que ça va xam luñ lay wax ci réew mi dëgër na man ci loolu lay basé wu dégg àgguma ci mbirum économie euh, les puristes euh, ils vont faire un débat sur le sujet mais ci la nit ñi di dund te propos Ousmane Sonko dafa am yu ko jiitu woon le président de la République est venu dire que

Euh, Sénégal depuis 10 ans mbirum fay impôt ak euh, fisc ak taxe dañ see dellu ginnaaw trop on doit faire des efforts supplémentaires parce que impôt bob ak euh, ñuy woowee ay fisc ak yoy taxe euh, taxe yoy mom moy tax mu mën am luñu insuffler wala luñu ñu piqûre ci veine économie ci réewum Sénégal té des na lu bari Banque mondiale la wax de donc si le Premier ministre dit nous avons trouvé un pays en ruine, sur le plan économique il à ay ay ay ay FMI, ci la FMI Banque mondiale maintenant est-ce que ruine bi dafa ci ñëpp je suis pas là pour défendre je ne suis pas là pour contrer le Bougan. mais Bougan, il ne dit pas que non dafay démentir Premier ministre dafa ne nañu c'est ci major, ma jot ci nous ma gis ñu bind ko nañu léral la wax ni dafa nek un pays en ruine donc on attend que